Euh, force de l'ordre yi daal di intervenir bañ mujjee jàmmaarloo foofu noonu mu nekk ay attentat yu xawoon doy waar ba tax daal force de l'ordre yi mujjee tiire ay balles réelles nag ba am ñu ca euh, ñàkk seen bakkan 77 842 19 19 bu fekkee ni résumé vidéo bi euh, disponible na rek ngeen daal di koy dugal bu ko defee ñu seetaanandoo ko ak mbokki internet yi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy topp depuis bi ñu commencé ba léegi amaat na ku nekk si ligne bi allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay ziar. maa ngi leen di yaa ngi fi Dakar. Euh, maa ngi woote Paris. Paris naka waa Paris France ñu ngi ci jàmm. non ñu nekk ñu ci jàmm. <laughs> déet waay sëñ bi. non dama lay wax benn affaire ah. Mhm. suñu xol neexul fii. Mhm, mhm, gis naa fi ay nit yu naan dañuy dem Sénégal. dañuy xeexi. naa fi samay xarit ci ñu naan dañoom dañuy dem Sénégal pour xeexi adduna adduna day jeex Macky na xam ni moom du yàlla mhm. Macky du buur moomul Sénégal bàyyam moomu ko ndeyam moomu ko mhm. dafa bëggu dafa bëggu rey sénégalais na dem préparer ay cimetière mhm. na dem tabax ay prison comme ça mu dugal fa sénégalais na ko defar na dem préparer ay cimetière na dem pré na dem tabax ay ay ay prison mhm. parce que réew mi moomu ko. Mhm. bu dee les occidentaux. l' international dinañ seetaan Macky Sall mu mu salfaañe rey sénégalais ah ñu xam ne c' des complices. Mhm. ñoom seen bët yëpp ci biir ressource la ñu nekkoon. mais Macky Sall moom mooy kan ba muy tirer ba muy tirer ci population am. Macky Sall il a demandé les surfaces des sénégalais. gars yi def ko confiance ñu dénk ko ko Sénégal Sénégal moom moomu ko. Mhm. au nom de quoi muy muy muy muy emprisonné ay sénégalais muy rey ay sénégalais ah muy torturé ay sénégalais. Mhm. au nom de quoi fan la ko teg moom mooy kan. Mhm. y a son entourage bien sûr ñoom Antoine Diome ay ñoom xaw ma lan nu mu tuddati général Fall xaw ma lan la mais ne leen fi àdduna la. le maire de Pont yooyu ami chef ana moom du moom lañ ñu denc dañ ko doon denc tey ñoom ñëpp fa dañuy jaar bu ñu demee dinañ ko layoo ak yàlla gis nga yore nguura ah. jaamu yàlla la mais ñi gëmuñu yàlla vous avez dit qu'au Sénégal il y a quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans je dis qu'il y a moins de quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans am na ñoo xam ne gëmuñu yàlla parce que dañuy xeex yàlla lu yàlla bañ moom la ñuy def di ko def fan ñëpp di ci teg seen bët assassiné nit di menacé nit de mort xoolal ay ñoom xoolal docteur Alseni Gueye ndeysaan. bu mhm. nu xatal ko bu mu bàyyi liggéeyam ñu topp ko ñu ne fan nga ñëw nga fen par force fan nga fen wala ñu rey loolu mooy Sénégal. Mhm. loolu la ñu Sénégal la ñu xam ci Sénégal se pas le Sénégal ça. Mhm. léegi xam nañu bëgg def nañu préparé ay cimetière ñu dem tabax prison parce que xoolal sénégalais yi ils vont pas se nañ ko def guerre civile bu ñu paree ñu def ko fële loolu la ñu bëgg dina am parce que Sénégal kenn moomu ko il faut que mu leer Macky Sall na delloo si xelam Sénégal bii moom ko bés dina sangoo suuf suuf si lekk waaye Sénégal du ko lekk suuf senegal bi moo koy lekk bu soobee yàlla incha allah te bu demee dina ko loo ak yàlla sénégalais bi dal nañ ko dal bi soobee yàlla non non mais kii du nit ci xet boo ko gën billaahi xet boo ko gën. léegi sénégalais yi nañu pare. parce que gis nga xale sénégalais bu delloo ginnaaw ah. ñun pare nañ pour changer nationalité. on sera on sera pas des sénégalais kon kon euh, ma sëñ bi. non. Euh, ma ne ko billaahi Sénégal. Euh, kon yéen da ngeen a da ngeen pare pour def seen convoi ñëw fii. Euh, dama ne on a va brûler ce putain de drapeau incha allah. Mhm. Macky Sall bu toogaatee ci nguur gi. Mhm. que lii du réew ah. nañ ko taal mu jeex parce que lii du réew. putain. Mhm. il se prend pour qui. mais est-ce que tamit est tamit mënu leen a leen a euh, lii di combat bi. Euh, xam nga Cheikh vous êtes des journalistes wala dañuy waxante dëgg bu ñu tollee ci waxante dëgg nañu waxante dëgg ah ay hmm. journalistes ngeen may wax leen dëgg nañuy waxante dëgg. Hmm. dis la vérité. Hmm. voilà dañuy bàyyi ci tergiversé on dit nañ jaar ci dëgg bi lii du dëgg du yoon. Macky Sall moomu yow. waaw nan daal dëkk bi léegi na ko def guerre civile mu jeex. jërëjëf. si si fa lañ jëm foofu lañ jëm. jërëjëf. foofu la ñu jëm mën naa ko wax. Mhm. kii du kii du nit ah ñii duñu ay nit dara laa la wax ñuy après seen koor gi moom a ah. xam na yàlla dina am ñu mu koy nangul mais Sénégal voire bonne la population seen koor gi du baax bu soobee yàlla da ngeen di woor di xiifal ngeen dem di julli di di sport parce que yàlla su leen ko nangul di mais xeex yàlla ngeen di xeexal seen koor bi yàlla du ko nangu. une bonne partie de la population du Sénégal parce que nekku leen ci dëgg yàlla ngeen di xeexal. Mhm. waaw nañ ñenn ñi xiifal dem di ci ci mosquée yi di sport waaye lii du yëfu jullit jullit doxe jullit lu affaire julli rek ak jëf jëf bi tamit ci ki da am yërmande mhm. da ngay xool dans les familles ñii dañuy togg añ duñu reer les enfants vont se débrouiller di dem jënd ay fonde ndekki bi tu vas te débrouiller xale dem ci joxe seen bopp loolu moom Sénégal alors qu'il y a des imbéciles yi toog ci ay milliards ñu ngi toog ci ay milliards di reetaan di reetaan la population sénégalaise au nom de quoi lan moo ko fi jar lan moo ko fi jar seen milliards yooyu ñu ci noonu mënuñu yi nit ñi faju normalement ah Sénégal yi faju ah lan moo c'est-à-dire milliards yi toog fii bàyyi la population sénégalaise di souffrir on va pas se taire mhm. au nom de quoi fii tubaab yi dañ leen di dimbali ah. fii tubaab de dañu fay dañu fay ay soins on les soigne on les on les soigne gratuitement xam nga fin du mois ay chômeurs dañ leen di dimbali jox leen xaalis ci xaalis askan wi la te xaalis xaalis bi ci askan wi la jëm un ministre bu nga xam ne jógee fa jógee ci ci ci gouvernement bi da ngay dajeeg moom métro muy muy nekk comme les citoyens sénégalais les chefs de Mais des ministres ne sont pas millionnaires ici. Au Sénégal, les ministres sont des milliardaires. Mais putain, au nom de quoi Faut une cotec. Mm-hmm. Faut les cotec. Alors on parle de clifotiner. Il y a des clifotinés au Sénégal. Dites-le. Mm-hmm. am na ay kilifa diine wax leen. Mm-hmm. ah ñu ngi ne pat di ko seetaan muy déroulé au nom de quoi fii àdduna la da ngeen fiy jógee dañ leen di dañ suñu sangoo suuf. lu ngeen fi jëf moom ngeen fi bàyyi putain. jërëjëf. nañu continuer di raison adama yi nañu pare ay cimetière ñu pare ay prison. jërëjëf pour ñu ñu ay sénégalais yëpp ba pare ñu def ñëpp ci prison yi. jërëjëf. putain. jërëjëf merci beaucoup jërëjëf Massa jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax euh, merci beaucoup allo salaamaaleykum. allo allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. Dakar. waaw sëñ bi ñu ngi lay ziar. yàlla yal yàlla nangu si wax. allahumma nañ ci jàmm. Hmm, yàlla bu baax alhamdulilah. waa Sénégal de nañ ci jàmm jamono. Hmm, hmm. xam nga jàmm jamono.